ñu bari ñu ne péngu coronavirus bi dafay tax ba am doom te amuñ ci benn firme kon fexe leen dem péngu ji pour aar seen boppa ak askan bi. Assalamu aleykum oɗon fof on calminama eh, imam udditani en e duwaw eɗen ko eɗen mbiya amin kadi kanko daranto en ɗo kadi inde joom saare joom saare o wona keɓorɗo ɗum kadi joni min tottitamo tan o bismo hoɓɓe ɓe kadi e nder ñaani kundan bisimilla eyo assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu siɓan eyo assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barkatuhu e ko konngol alkaali e kaalan ni min samba diallo alkaali esa diallo konngol makko kaalanmi ɗo oyno somi arrivi on bisimilla on hoɓɓe ɓe min waɗa ko jewtanmi on seeɗa waɗa ko jewtu men ɗo seeɗa e senngo e gardiɗo pati o woni e halifa sallah e dendanangal ɓe o arde ɓe fof wi on bisimilla moɗon e saare he bisimilla moɗon e saare he yo ɗum si yawti o yimi holla e, halifa en wonde nam ɗo he saare he ɓe wona hoɓɓe ɓe ɗo wona garɓe wat politique ɗo ko musidɓe maɓɓe gonni ɗo saabu enen ɗo he maɓɓe en ɓoydi e maɓɓe haysi wona politique en ɓoydi e maɓɓe enene maɓɓe enene ɗo he kotiraɓe meɗen ɓe ɗo minen kotiraɓe ɓe saare he e halifa en gimmota jemma e ñalowma kamɓe mbaddata foof hen ha waɗi hen ɓe gandantuma ɓe gokki en rewɓe woni demba diallo on ko he maɓɓe gokkien gokkien debbo ɗum noni gandi o nden wona ɓen wona campagne gariɗo ɗon ko musidal ari ɗo nden ɓe mbiyama bisimilla maɓɓe ngol kolngol ɗon bisimilla maɓɓe halkaliɓe bisimilla maɓɓe ɓe ganda wonnan ɗo ko saare maɓɓe ɗum woni weltare amen no bete onon walde ɗo woni weltare amen no bete onon walde ɗo woni weltare amen no bete onon walde ɗo ɗo ganduɗo wona politique moɗon ɗono ɗo ko ngaro ko jokkere endam bisimilla moɗon a jarama jof haalakare wi laawol a weltanaama e nden noon wona meeting juɗɗo comme no o wini wona e, ralli min ngari wadde ko musidal tan siftinirde gooto kala ko wowi kore e kono ɗo he e noddude kaaloo mi holla on hellifade nde gonduɗen ɓe ngol laawol ɗo e, honorable sidia diata mo wondi e men ɗo e kadi honorable ousmane sila obo e eh, he kanko kadi eh, kadi eh, alhaji mamadi couran on kadi omo e laawol he kañum e honorable halifa sala secretary general and leader of the pdis ɓe mbismomo rek o ara o salmodira e moɗon bisimilla honorable Assalamu alaikum. o wi o salmini saare nde ken okkulen doole ci rew o wi hay goto ɓura on doole e ndi leydi ken okkulen baat ci rew ndi ala ɓurɗo on ɗo konngol e nder ndi leydi sen carte wati o wi carte mon woote ɗe baati doomi rewla o wi ko ko doole ɓiɗɗo leydi doole doomi réew woyi ko doole ɓiɗɗo leydi li ngeen war a bàyyi xel woyi ko poɗɗon accirde hakkille ñu ngi leen a oowaat eɓe on nodda kadi ci ñenenti fan ci décembre o wi balɗe nayi lewru décembre pour ngeen wone seen doole kolliron doole mooɗon wone seen baat kolliron konngol mooɗon pour digal réew mi walla pour sowe réew mi o wi pour nattinon leydi ndi e nder ngaska walla jaltinon leydi ndi ndax na ngeen a wotee mooy diggal rewmi nagena wote mooy sukkali rewmi o wi no gootirton ni ko ɗum nattinta leydi ndi e gaska koɗo gootirton ni yaltintani kadi e gaska bala ñenenti fanti décembre o wi ɗo he balɗe nayi décembre alal ɓe nga xam ne moom lañ wara liggéeye rewmi ci at mi ñëw o wi jawdi ndi ngannduɗaa ni konin fota waɗeede dépasse e leydi e ɗi lebbi sappo e ɗiɗi woni de ɗo hitaande aronde ɗo waxtaanee nañ ko ba pare o wi ɓe jewtidii ɗum haa ɓe pari ɓe negi député yi d' nañ ci ba pare o wi haa suudu député ɓe ndi d' accord haa pari def nañ ko mu nekk loi mbaɗii ɗum loi bon président bi ngeen a tànn si oy nden président mo cuɓoton o li dugal si si loxo o tottoton mo ko e juuɗe makko si on cuɓiimo ñaar fukki junne million ak ñetti junne million million ŋaji ujunaje no eh, ujunaje nogas e eh, million ŋaji ujunaje capantati te wote amagol o wi to noon en beddaki bon na ngeen xam ne li ñoo liggéeye réew dépassé réew du jóge ci poste de o yiden noon ngandon ko liggorte ko leydi wona e poste président immorta de mu ngi jóge ci seen poste ko he posteji mon he ɗum immorta so ute id card dugal nga xaalis si kees réew ya id card a nattini kalis eh, e keese marchandise boo jëndee ci bitig yi xamal ne muy sukkur muy guru xamal ne dugal nga xaalis ci keese o wi kala marchandise mo coɗɗa woni sukkur woni goro kala ko mbawɗa sodde e bitig a nattini xaalis e keese ndax marchandise bu duga ci si réew mi dafa jaar customs ki ko isi dafa fay juuti mu duga ci kees gi suy jaay marchandise ba la mu fay mu duga ci kees gi daf ko jegaat tegaat ko ci njëg marchandise yi jaay ko nit bon alal dafa duga yéen yéen a ko fa duga o laamu no okka doole e sengo luwa fawde hen lempo kono on jooma marchandise kadi si o yoɓi on lempo luwa okkimo doole simo yeeya marchandise o kala ko o yoɓno hen lempo o fawta ɗum e coggu marchandise o yeyta ɗum yimɓe ɓe bon dépasse rewmi jogee wocci président de dépasse rewmi yoge jogee ci toomi rewmi o nden noon dépasse leydi o immoraki e juuɗe président de no immora e juuɗe enen ɓiɓɓe leydi ɓe moo tax am baat ci xaalis boobu woyi ko ɗum tagi haa hoɗon dañi konngol e on kaalis moo tax ngeen di tànn ki war a dénka ki ngeen war a dénkaane kees ko ɗum waɗi hoɗon cuɓa noon hombo fotaa halfineede on kees bon ku bugge nekk président oyi nden noon kala jiɗɗo wonde président da nga war a taxaw fii ko a foddaro e bantaaji he nga wax ni ñi kaalanaa yimɓe ɓe soo yoree xaalis boobu so a jogiima on kaalis naka ngaa fexe mu dellusiwaat ci këri nit ñi dàq leen ci ñàkk ci ndóol kono hene feere jogiɗa si a halfinama on kees ha o wawa kan jawdi ndi rutto e galleji he itta tampere e basal ak itam naka la ñoo fexee ci dëkk yi xaalis boobu delsiwaat mun a liggéey dëkk yi oy he kadi ono on kaalis wawta ruttorade e caye he ha wawa liggade cayeɗe so waxul loolu nit ñi waxuloo leen dara oyi ɗum si a haalnani ɗum yimɓe ɓe nden ala ko kalɗa ngeen déglu bu baax oyi kettoɗon oyi kettoɗon ko jagi noon alal bi ci kees gi o wi jawdi wonni ni e keese soo buggee génn dëkk yi ci dellu gannaaw o wi si a yiɗi ittude ci e, e ruttade ruttaade ɓaawo fof doxalin bi fi nekkoon démb ñu génne ko système change e si doxalin bu bees o wi nden no leydi ndi jogorano ni gila folo ko ɗum sansete adde systéme change beccen noon ndi jogorteeni ban doxalin moo fi nekk juróom fukki at ak juróom benn ak pat bu mun a yore area council o wi no jawɗe eh, no leydi ndi jogorano ni duuɓi capanɗe joyi e jeegom jawtuɗi ɗi e homo parti jogii éria kansul moy so len feye sen naamoyi ngen fey laysini ndik sen bitiki ngeen fay sen juuti ndik yenen ak yenen ak yenen ndax nak yeeg yépp dañuy fay so len fayee loolu yépp ñu buub yépp yóbbu area council te doo ko gisaat oyi si alaati ndima si on jogi lempooji mon galle ɗi on jogi laysinaaji mon bitik ɗi nayi ɗi jogi lempooji fof ɓe denndina

alal bi nga xam ne moo nekk ci keesi area ci keesi area kansul jógee ci ñaani kunda alal boobu yëpp du fa demati yëpp dafa nekk ci keesi ñaani kunda o yisi no ko kanko no o yiɗi jogoraade leydi ndi ni kala ko joɓaaɗo e ndeer ñaani kunda wonta ya area kansul ko ñaani kunda heɓata kees muɗum ko joɓoton ko lempo wona e ndeer kees saare mon loolu mooy yoon ndax kër su amul de pastas o wiite ko ɗum woni goonga nde galle si alaa dépense pusan VDC bu amul kees naka laa mun a essayer yokkute ci dëkk o wi VDC bu alaa kees hono on addata yaa ɓamtaare e saare moo tax ñu dañu ne bon gannaaw ñaa kundaa mu ngi génnee lempo mu ngi génnee juuti mu ngi génnee laysin alal boobu yëpp dafa war a toog ci dëkk bi at mu nekk VDC bi toog ak waa dëkk bi ñu seet ndax yoon yi lañoo ñoo defar ndax jigéen yi seen naako yi moom la ñoo utal fence def fa ndox ndax dañuy war a sampa lopitaan bu ndaw boo xam ne dinañ jàngal waa dëkk bi ñu mun a toppatoo mu jigéen juy mattu su ko defee ci boor bi dinañ fa war a def li nga xam ne mooy ambulance ñu suñ amee jafe-jafe daw oo ambulance bi mu yóbbu ci koo xam ne dinañ sooy bakkanam ndax dañoo isi lampa soo la ci kër yi yëpp ndax dañoo war a fexe itam eh, isi pour xale yu ndaw yi ñu mun a am sport ground jëndal leen football jëndal leen bés mu nekk tiimi Ñaanikunda ndax ñu pugaroo waa dëkk bi ndax lu mun a doon rek loo xam ne dëkk bi moo war mu am ko ndax mu nekk dëkk bu xam ne bi dina am jëmmi jëm kanam ñu ne loolu suñ ko waxtaanee dinañ seen ndax kees gi antal la ko su ko antalee ñu doxal loolu su fekkee ne kees gi antalu ko alal biñ moom ñun ñëpp ñaar fukki junne million léegi dafa am lu ñoo sedd région si ak municipality su ko defee Ñaani Kunda su buggee doxal dara te dooleem tolluwul foofu mu mel ni bon dinañ dem jël ci kees gi isil leen yokkal leen ndax ñu mën a doxal seen projet o wi si tawno ko kanko no o nawrata ni e ko o noddata ko systéme ceyi o wi enen jamanu jogagol makko leydi o wi kala kaalis walla naamu joɓaɗo e nder nde saare ko kees moon saare ɗo wonata nden a yiyat bbc o hitande fof o jooɗodat e maw e yimɓe saare nde ɓe ndaara nde saare hannde ɗo tolniɗen ɗo ko hoɗum manki ɗo hoɗum yiɗen gollude ɓe mbaɗa ɗum projet si ɓe mbaɗi on projet wayno ko rewɓe ɓe ko gadinɗo cohlina ko ndiyam mankina ko wargo soolaji e saare hena e sukaɓe ɓe annduɗa ɓe ɓe yiɗi e, ko wiyata ko sport e affaire football ɓe keɓa tim maɓɓe ta on mbiɗi si ha joni no jogii kees hoɗum o wallitorto sukaɓe ɓe ɓe keɓa sudulaɗo ɓe pijata football e besuji e football kala ko ngannduɗaa ko ɗum avantage e yaɓoyaagol yeeso e ndeer saare he bdc o jooɗodat e saare nde ɓe pewja projet kala projet noon bo ɓe pewji si ɓe jehii haa ɓe tawii kees saare o hattanaani ɗum o wi rijon o kees muɗum o on ɗon ndaare hoɗum wallitorta bdc o waawa timmintinde on projet oyi si woodii kadi e haa jooni kees rijon o hattanaani ɗum ɗon kadi kees mo ndennduɗen o enen fof leydi ndi on ɗon daare ko h o n u m t a ɗeydintanta e bdc o projet o wawa hantade o wi kanko ko noon o yiɗi jogorade kulle area kansul e lempoji ɗi joɓeten ɗi bon nag ñun loolu la ñu oyee système c h a n g wecci doxale su f e k k e ne juróom fukki at ak juróom benn i la dëkk bi doon doxe ndax dëkk bi dina mel nii t e o wi ko ɗum noon waɗi mo wiya systéme ceeƴi tan sen no jogoroɗen ni leydi ndi o wi nde feere d e o haali ɗo duuɓi capanɗe joyi e jeegom tawno gambiya ko ni jogorano dande saare hannde ko ni nde wa'atno mel ni bon su fekkee nag ne dañoo wax naka la alali réew mi di ñëw ba dugg ci sa kër yi dàq ñàkk ñun danañu ñaari bunt lañu ñu benn bunt bi mooy xam ngeen ne soo béyee tamaat mun nga am factory boo xam ne dafaa ñëw ba ci garden bi mu jënd ko foofu su ko defee jigéen yi noppale ko ne yóbbu ko ëlbati ko def ko tamaate lokkati doomi réew mi mun a liggéey foofu su ko defee ni nga gis ne liggéey dafaa daal am ci réew mi soo bayee gerte gi ñu jënd ko ci ci ci fi ko euh, li fi su ko defee loolu suñ ko jëlee ñu yóbbu ko ëlbati ko mu nekk diwlin mu nekk saabu loolu tam nekk beneen facture boo xam ne bii doomi réew mi dinañ ci mun a liggéey soo seetee rek ak male passé pour jëlee diwlin bitim réew isi ko ci réew mi liñ ci fere benn junni million ak ñaar téeméeri million one point two billion loo xam ne li mun nañ koo liggéey fii xaalis boobu dina doon toog ci réew mi xaalis bi dem bitim réew du demati su ko defee dina sukkali suñ koom-koomi réew mi su ko defee ñu samp facture yu gën a bëri pour suñ doomi réew mi mun a liggéey o wi ɗum ko haaldano o systéme ceeyi o wi o holliri misal o wi rewɓe ndemoɓe naakoji si ɓe ndeni tamate on tamate ha joni yonta tan rewɓe ɓe balleɓe keɓa gadin pour ɓe mbawa remde tamate kono si on tamate nde ɓendi facture ji darnete wona comme compinaji ɓe jahat ha naakoji to kala mentu ɓennuɗo ɓe cooda ɗum e juuɗe o ɓen rewɓe ɓe naɓa to isinto mbatta ɗum tamate lukkati ɓe mbaɗa ɗum e potuji e mbuusuji yeeye e leydi he o wi ayiyat kadi ɗum jibinana ndemɗo o jawdi jibinana leydi ndi kadi économie ɗum yaara yeeso kadi wallat sukaɓe jooɗiɓe ɓe ngala ligde kadi ɓe keɓat to ɓe liggi o wi gerte ɗe wona noon si gerte ɗe ne ndemama nder leydi ɗo watte diwlin kala ko ngannduɗaa ko he ettare ɗum iwod iwada fof watte ɗum ɗo kadi a yiyat place liggorɗo jibinaama e leydi he haa jooni o wi a yiyat économie leydi ndi kadi rewat ɗon yaara yeeso o wi e dow ɗum noon kala mo ngannduɗaa ko oɗo systéme jiɗɗa e ko oɗo waɗi kanko ɓe cikki ko ɗum addata systéme ceeñ keɓen ko emen juróom téeméeri junne xelel fukki at ak ñaar yu nekk dañuy wàcc si school fi mu nekk nii benn facteur amul ci réew mi boo xam ne bii mun nañ ko puuga réew pour jox xale yi liggéey lii moo tax liggéey amul ci réew mi bon nag ñun dañ ne suñ jëlee réew mi dinañ am ci central bank li ñoo ooyee sovereign wealth investment fund dinañ séddoo ci xaalisi réew mi fond boobu ndax ñuy mën a samp factory jëndam euh, saxaari nappukaay loo xam ne lii dina jural réew mi alal dinañ ko dugal ca ca buntu boobu su ko defee seen njaboot gi dinañ mën a am liggéey o wi ko ɗum waɗi so tawi ko systéme me ɓe noddata ɗo ko on dari e leydi he ɓe jogi koɓe mbiyata ko soverin national wel woni jawdi ndi leydi ndi fof rinni o ɓe keɓat hen feccore nde ngannduɗaa nde waaloto central banque pour waawa wallitaade darnugol ɗin isinaaji e ndeer leydi hee ayiya ɗin isinaaji mbaawa dibinande sukaaɓe men ɓe ngannduɗaa ɓe ujunaaji teme e joyi sukaaɓe ko ɗum jippotoo school duuɓi sappo e ɗiɗi fof duuɓi sappo e ɗiɗi e ndeer leydi hee te ligge alaa oyi kono ay yiyat si ɗin isinaji no darne a yiyat ɓen ɗonne fof keɓanɗo ɓe liggi si jogoo koye maɓɓe jogoo musidal maɓɓe hellifaaɓe maɓɓe wayde gannaaw dañ wax ne dañ bugg a dàq ndóol duñ xaar ba sa taxawal factory pour dàq ko ñu ne ci xaalis bi nga xam ne moom laa tudd noonu pour réew mi dinañ ci jël waar dugal ko ci eh, lu ñoo ooyee coopérative banque soo nekkee béykat nga soxla engrais jiwu machine jigen nga soxla engrais ju machine ci nakoy ak ndox ak fence di nga mëna dem ci caisse gi nga am ko liggéey wat ci caisse gi te do ci def interest o wi ko ɗum do mu andi dar nu gol gol factory ɗum tanar waktu te haba gol basal e tampere e leydi he potani fotani de o wi wande o nelni de do fere kadi ɓe ballinat mo ganduda kala mo ganduda ka a do e nder leydi si a hebi haaju pour imminde ligge maɗa aɗa wawi yaade e on banque ɓaŋa kalis liggoɗa kala ko jiɗɗa liggade on kalis komi wiyata ko interest fri loan ko ɓamnoɗa defar saabu ak yi ñépp li ñuy defar di nga dem foofu mun ci xaalis bi dugal ci euh, sa business liggéey ba pare delloo ci kees su fekkee ni itam nekk nga ay sarpanc xaarkati bata welda eh, loo mun a xam ci liggéeykat ku am milling machine boo xam ne dinga nga ëlbati dugub bi mu nekk foriñ ñeneen yi di ko lakk mu nekk mbuuru mbooleelu liggéeykat ci réew mi mun naa dem ci bunte boobu am liggéey delluwaat ci kees gi te waroo fay beneen ci e ko ɗo woni ko sabunde liggotoɗa a weldamanna ko seggol leɗɗe woni ligge ma ko business woni ligge ma kala façon ligge mo mo jogiɗa e nder ndi leydi so a heɓi tan ko manquirement pour ligge ma yaara yeeso on ɗon banque mo wawma daranade e eh, mbaɗa promote golle maɗa haaɗe jibinanma nafoore te a fawoyta hen hay ɓuuɗu siɗa waɗta ko ɓamnoɗa bon nag gis ngeen ne ñooñu nga xam ne liggéey nañ ba am seen kër yi dinañ ko mën a defar dinañ am compagnie boo xam ne dina la sampal ngay fay ndànk ndànk o wi a yiyat on tuma si tawi façon ɗen liggere yaha e nder leydi he goto kala joni a heeɓiɗo nannguɗa te aɗa yakori ɗum jibinanama nafa o wi hay si a faalama suudu on compagnie no wawmama hande suuduma ha moƴƴa haɗa yoɓira ɗum seeɗa seeɗa hane suudu gasoyta ta hay tampere awa a heɓani he mum gisgene bon ni koon kuñow fiitey domuna xamme teeruɓi a kowɗi o wi si tawno ko ngon façon joganga woni e leydi he te ɗum woni ha waktu a andinirta hoto woni tufne e hoto woni dowri e nder leydi he loolu lañ bugg a defar ci réewi gambia o wi ko ɗum noon kamɓe ɓe jiɗani leydi gambia wande sen karta o tawi mo ñoo mun a may doole pour ñu defar oyi kono nag ɓe mbawa dañde ɗen doole sina karta mon wote ɗe ɓe hokka ndax yenay tanna président dako onon cuɓata président bala président bogude mun a isi dokalina ɗo he on président wawa addude kankon miijo makko no leydi foti jogorade liñ leen paraya sal tax passana lool ndax ci sovereign in wealth investment fund suñ ko dugalee ci géej gi dugal ko ci bunte bu nekk dafaa isi alal boo xam ne bii dinañ mun a joxe free education grade one ba grade twelve doo fay dara te sa doom dina am añ ak ak ak ak ak ak añ te itam dinañ mun a dem su passé grade twelve benn yée boo xam ne national service la dina mun a seet bunte boo xam ne bi dina fa mun a jàng dara su fekkee balaa moo pareyaasal ëllëg euh, pour mun a yore bopp o wii ko ɓe miije ni ko leydi ndi sa ɓuri ɗum ko o haali ɗo o wii on soveri national wel mo o wiyata ɓe ɓaŋan mo kadi ɓe nattinamo e sengo maayo he gila e awgol liƴƴingol e dame ngannduɗa jibina e jawdi e leydi he a yiyat nin jawdi waawi ruttaade udita ɗin palace uji ɗi o wiyata e a yiyat sukaaɓe ɓe hantin ɗo waawi heɓde free education taw wonaa lempo fawa ɓay ta kalis nattinaama ɗo jibinanta kali ɗo jibinta kalis on kali jibinteɗo ɗon no waawi okkude sukaaɓe ɓe jannga fri taw ɓe joɓata hay muuɗum kadi ɓe parana sukaaɓe ɓe kadi ɗo heɓe gaynude grade 12 ɓe ndaara heɗi laabi kamɓe ɓe njiɗi waagoyaade janngo pour ɓe mbaɗa ɗum laabi maɓɓe gurdam wayno ko métier ni walla services o yi ɗum fof ɓe keɓa on ɗon sens te school to kadi hay hira e bottaari e kasitaari fof ɓe keɓat ɗum to school to ayiyen nden tampere ñamgol kadi iwi e jibinaaɓe ɓe bon nag ñu emale ko foofu loolu mooy système change loolu mooy isi doxalin bu bees wande yéen ay borom carte yi borom doole su leen neexee ngeen wote ci dalil su leen neexee ngeen wote ci maate o wi nden noon ko ɗum woni systéme change o wi fof en nani jooni nag ko hedditi ko ko woote o ñande woote siɗen jiɗi gootanen dalili ittoo en e tampere si en jiɗi kadi gootiren ko noon weli kam min min waɗi so nen woteeci dalil koo xam ne kii presidential candidate la daf la war a wax naka la laa génne ci coono ci sa biir kër naka la laa génne ci coono ci sa biir dëkk nga déglu ñëpp wax ki nga xam ne wax na boo xam ne bii yow nangu nga loolu nga jël sa per nga dugal ko ci keesa o wi ko hoɗum woni wotango dalil ɗum woni kala présidentiel candidate o fot arde o daroɗo banta ɗo o haalana en ɗi billion ŋaji nogase tati ɗiɓe kalfinte hono hongol laawol kamɓe ɓe naɗirta ndin jawdi ha mbawen ittude tampere e nder saare he koloɗen haala makko beddanoɗen mo kartal e dow on dalil wane sowi ah, wotta simmatey a somi jo he tichat gariɗanala wotta su la joxee sàkku maalo nga ne dinaa la wat mu jox la warga nga ne dinaa la watal eh, su ko defee nag ak gannaaw boo wotee ci maatey soo pare nga am nguuri maatey ooyi ndeen noon te a wootaani e dalil ko ngootantaa tan o o kii kam tiisaat mi weddantoomo carte o kii kam ataya e sukkar mi weddanoomo carte o kii kam saaku e ma saakuyel maaro mi weddantoomo carte oy ko ɗum woni wootande ko noon welinmi oy kono noon kala ngootanɗo noon welinmi keɓaa laamu noon weli kam ki nga xam ne nag mooy woote ci ko kooku xamul ki mu doon soo xamul ki nga doon te doo xam li nga moom soo xamul li nga moom keneen moom ma la ko boppam yow nga ñàkk ko kooku nekk ci àjjana ci kaw suuf yow nga nekk ci jaxanama ci kaw suuf lan mooy jaxanama ci kaw suuf juddu ci cool màggee ci cool màggee ci cool dee ci cool doom ci cool dee ci cool sët ci cool dee ci cool dafaw oy hoɗum woni wootam noon weli kam ko ɗum woni kala mo ngannduɗa gootano fof ko noon weli kam wootiri on woni a annda homo bonɗa o wi si a annda mo bonɗa a anndata ko jeyɗa si a annda ko jeyɗa goɗɗo goɗɗo jaytindo ɗum naftora gona e arijanna e dow leydi an gona e tampere ma e dow aduna o wi ɗum noon ko woni addata jibine e tampere mawna e tampere nayiwa e tampere maaya e tampere acca ɓiɓɓe e tampere taaniraaɓe ne maaya e tampere ko ɗum jibinta ñaari façon ni coono mo nekk ci tampere hono jaltiranmi heen su ko deful rek bokk na ci bàyyi may mu dem dë dëkki ca àll ba wante suy nit foog mu laaj boppam lu tax mu nekk ci coono bi ak naka o wi si ayi neɗɗo ɓurdi e mumunteji ɗi ko ɗum de kandi gila aduna dawi mumunte ko he tampere woni kono meeɗa fewjidi no yaltirta e tampere o wi e kono neɗɗo kadi si a hoɗi e tampere a ɗaɓɓata feere no jaltirɗa e tampere o wi ta nden en potodiri e majji wote 2016 a kuƴƴe 2021 nekkulden oyi woote 2016 woni woote président jawtuɗo ɗo oyi he o garoɗo wona gotum de bala 2016 rewmi musuto wacci kuci wote ko wax rek mune baadole mun tatake guur ko wax rek mune katte wote mun to genne président oyi ɗo he o woote jawtuɗo o wadde goto fof ko wiyatno laamu ala mbawɗo haɓe mum min komi basdolo haɓata e laamu wane nag ci ñaari fan ci décembre 2016 ke ëppoon alal ñëpp ëpp doole ñëpp ëpp baat ñëpp jël téléphone am téléphone koo xam ne kenn xamu ko woon ci politique balaa moo taxaw ci wote président ne ko jébal naa la nguur oyi kono noon e nder balɗe ɗiɗi lewru décembre mo ngannduɗa o ɓurno jawdi leydi ndi fof ɓurno ɗo doole ɓurno ɗo konngol o ƴetti téléphone makko o noddi téléphone mo ngannduɗa hay goto andana on e leydi he do e makko darade wote o bo mi okkitima leydi ndi ko waral sen carte wote hoɗum anduno dum ko carte mon wote de mu khala am ñaari xel ñu ne len dal len fukki fana juróom ñetta ci wér janvier dina dem su ko deful dafa dal di nek rew def bokkum rew de o yeyi ha o jabi wondema o okkitira leydi ndi o yeyi ha e hakkunde kadi o wecci miijo makko o wi joni o wona okkitiro ndi waɗi noon dariɗo o wi yimɓe ɓe onon fof jooɗoɗe tenkon wata mo haali wata mo waɗi ko waktu o fadi on waktu ñande yoli so o jippaaki tan o wontata rebel e leydi he ɗumi mel ni luttak ñu ɗon wak loolu mooy ne xamne nde sen carte watey mooy baat ak doole bi nga xam ne mooy tax nguur nekk nguur gu sella o wi ko taki haa o haalno ɗum kanko ne eɓe nganndi wondema laamu waawataa wonde laamu sellungu e dow laawol sina onon carte mon woote ɗe okka nden noon kala mo okkaka ɗen carte woote wawa sellinde laamu mum e ɗer ndi leydi ko ɗum wonno dalil o bon nak ɓen domi gam mbiya fim nekke ni duttoo ne dafa ti dafa ragal dafa xamul ne amna ba amna doole ci rew o wi nden noon jooni hay gooto e ndi leydi wiyata min jooni komi anndano walla komi hul enen fof en nganndi ɗum alata ɗo jooni ndene fof mbaɗɗen kala ko mbaɗɗen heen ganden ko noon jiɗirɗen kono kulol huuɓi majjere huuɓi enen fof en nganndi wondema ndeke carte woote ko ɗum joɗɗinta président carte woote ko ɗum imminta président gana buumbi jaamdi daggana ku nekk nekk na gor ci réew mi ku nekk dafa war a moom boppam bañ a nangu pour nga nekk ci loxo digi loxo benn nit yow moom réew mi léegi 2021 mooy ndax di nga mun a dàq ci réew 2016 mooy dëgg buumi njaam gi ndax nga moom sa bopp bu ragalati kenn 2021 mooy léegi yaa ngi am doole boo xam ne mun ngaa dàq ndóol mun ngaa dàq noteer mun ngaa dàq réer mun ngaa dàq coono ci réew léegi nag ndax di ko dàq ndax doo ko dàq moo ci des o wii jooni ɗo gonɗen ɗo de eɗen nganndi o wota garowo ɗo a ah, comme no mbiɗen ni kulol alaata majjere alaata o hedditi jooni heɗen gondi e tampere kono ñanden ñande balɗe nayi disemba eɗen jogii doole ñanden haɓaade tampere ɗum iwa e dow men kono eɗen njiɗi eɗen mbaawi kadi nattinde ɗo tampere nde gaccen nde kontina o wi ñannden enen fof e njiyat enen gambiyannaaɓe hoɗum e mum enen fof njiɗɗen siko ko tampere nde kontina eɗen jogii ɗen doole nde kontina siko tampere nde yiɗɗen iwa eɗen jogii doole nden tampere iwa no heddii ñannden ko hoɗum mbatten bon nag caabi gàngoog ci seen loxo bunta bàngoog ci seen loxo mooy carte wote léegi ñaari bunta la ñaari ñaari néeg la benn néeg bi kaso la kaso ndóol kaso notel kaso réer beneen néeg bi néegi tedd la néegi taranga ak néegi leer su la neexee nga jël sa caabi nga ubbi ko dal di dugg ci néegi tedd bi nga taanu te néegi taranga ba ak leer ba faw doo nekkaati ci coono sa njaboot du nekk ci coon sa sët du wala nag nga teg sa bopp ci beneen bunte bi muy kaso ndóol mooy ñàkk kaso noteel ak kaso réer boobu tam nga continué waat ci coono di dee ci coono doom yi ci coono di dee ci coono o wii hen nen e, ñalaande balɗe nayi disemba en okkaama caabi ñannde gooto e men fof ɓe caabi ɓe okkuma ɓe mbiyama dame ɗiɗi nani yaa sugoy hangal damal udditta naata toon coka toon hoorema o wiɗe dame ɗiɗi damal gotal ngal ko basal tampere e majjere si a yiɗi uddita ngan naata toon coka hoorema o wi kono damal ɗimmal ngal won woni damal e, e si a udditingal naata e suudu ndu ngannduɗa ko teddungal e horma e hor e teranga ko ɗum gonirta toon o wi joni ko an suɓata ñanden hangal damal udditta naata kon cokaa hoore ma ñande man maa ngi leen a tàggu Gambia ci cëll benn yoon wi moo laa yóbbu ci tedd taranga ak leer ba faw nga génn ci coono ak sa njaboot soo leen awee ca yoon woo mun naa ànd yoon yeneen juróomi at ñu samp fondement bi su ko defee kenn du ko mun a yàqaat wala ngeen jubali nag ca kaso ndóol ba kaso notel ba ak kaso reer ñu tàggoo ngeen dem ma dem utiwaat leneen lu ma mën a defal réew mi ak àddina bi loo xam ne li du nekk ci politique eh, o wi jooni noon omo waynitoo en o wi kono ɗo waynitorta ɗo ko ɗum woni laabi ɗi koni ɗiɗi laawol ngol ngannduɗaa ko laawol ngol ngannduɗaa ngol huɓɓi lampu ko laawol yaarugol yeeso ko laawol jam woni heen koye ɗum noon omo yiɗi si heɗen fof en pari en njaadat e makko e ngol laawol ko heddi ko heɗi duuɓi joyi garowo garoɗi ɗo ɗi darnen fondo ma mo ganduɗa haysi o iwoyi ɗo janngo ala garoyo wawa bonnude ndi leydi kono si en jiɗani ɗum ndewen lawol ngol ganduɗa ko tampere e majjere e niɗɗere won toon o ɗon mbayno tirten e makko kanko o wonta en haala nde haala politique nden o laarat laawol gonngol ɗo waawi continuirde aduna makko eɗen gooto kala yaha laawol muɗum nit nag war naa boppam nekk fas sabmorami ni def bum ci sa fat war ci sa kaw di la daxee ngay daw di la daxee ngay daw di la daxee ngay daw benn gis nga ne kesing day tekk wala dara ci jam loolu nit war na koo daw ooyi neɗɗo na kodi ɓur nude hoore mum wonando neɗɗo no mum ni puccude neɗɗo no maani waɗa ɓoggol e daande ma walla e himere ma ƴeena e maaɗa omo dognama eh, aɗa aɗa doga omo waɗɗi e keesi ma haa ñade njanɗa mayɗa mbeddo e ɗaa ka ala ko naɗɗa hoore go e ɗaman gurdam ala ko ɗam nafi aduna goto fof foti ɗum salade on yo on jarama bandiraɓe enen foof en nani haala honorable sallak goto fof joni si a hooti ko an yewtitta e jeguena e maɗa oɗo ala o haɓɓi goto fof si a yehi dara ko ma ɓaga kono mi sikki ala ɗo hoore mum min mi sikki e eh, joni nomin nodda eh, mista eh, alaji mamadi kouran kan kadi wala o salmodira e musidal ngal mista kouran you welcome Mm, can speak for yeah, I'll, I'll try. <laughs> Assalamualaikum, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barakatuh. Uh, mi salmina alkali o mi salmina ilimano kali eh, eh, mi salmina kilifa o fof oniga eyi jarama uh, mi welcome o joni noon a 2021 wote o arede jenerali Samakala Uhuru. Wote ono misli wote ono misali ono ko password. Komo wari password ono. Ko jom karta wari password ono. Eh, min ko ñamina mi jeeɗa ko ɗo mi jeeɗa kon kuɗam andi tampere ñamina o fokko gooto nene man ko nene on ko faro yaata baba on ko jese o yaata tawi mi ka cukay ko, ko suudi kawno mi woni on am kamɓe ko ko so andi tampere on fof ko goto joni min kadi mi faali laamu kono andi aic o mi waɗi ono wada Intelligent informi waɗi endorsement ko yimɓe jeego ɓe waɗi laamu joni so il faut ɓe waɗi code endorsement joni noon affaire on ko hommoɓe waɗi endorse goɗɗo o haali yaaka samba samba o heewi kalis Yaka yoro yoro heavy water. pia kapate pate o hebi pass. kono mi wi sa hebi kalis a heɓaɗin feere a wawata golle gambia sa heewi oto haa o heewi a heewata nganndal a waawata golle gambiya palace wona wadi mi wadi mi join mi wadi join politics wona hefi place ko hefi gambia golle rewme o ko ɗum ki mi wadi politics John joni noon simi faali waɗi endorsement ko dalilaji tati mi waɗi endorsement o goto on mi faali en endos yimɓe o e pati o si o heeɓi feere si tawi o heeɓi feere dili o mi wadi endos men yimɓe o e pati o si tawi o heeɓi ngandal ngandal golle gambia o andi men fof ɓe heeɓi ngandal kono ngandal o wonaa gooto yimɓe ko farobe andi ko ɗum woni gandal mo o yimɓe o ko jessere o anndi ko ɗum woni gandal mo yimɓe o ko gaynaako ko ɗum woni gandal mo kono golle rewɓe o golle gambia o ɗum wona wona gandal sago kala one simiwiɗo faali iliman ko gandal wona gandal so faali iliman si tawi a sellani a yaaka doctar ko doctar omo yaata si o heeɓi ngandal wona ɗum joni noon président oɗo ko kamɓe woni mawɓe on fof so sa heeɓi feere ta heeɓi ngandal sattaji tati o o dalilaji tatti o o si min jonɗino palace a heewani yeremande àwọn àwàdà gọ́ọ̀lẹ̀. so jooni ko daliilaaji tati min faali noon minen kon gambia youth for change rewɓe min faalaali min faali weccigol min faali weccegol changegol min faali jooni noon si tawii ko ɗum woni daliilaaji tati noon Gambia fombe yi PDOIs, fombe andi PDOIs. Ren fombe andi Khalifa Sala, ren fombe andi Sidia Jata. Duuɓi je capanɗe je tati e jeego capanɗe je tati e jeego tati years ɓe yaha gambia saare to saare galle to galle yimɓe to yimɓe ɓe haalino waɗi preach so John, noon si tawi ko gambia mi faali si tawi ko gambia waɗi mi join mi waɗi join politics mi faali yimɓe o mi waɗi endorsement o so a heewi feere a heewi ngandal a heewi yermande ko ɗum taki mi wii december fourth, december fourth. kala ko yimɓe a yiwo o heeɓi probléme haa o heewi kono ko probléme gooto woni probléme mawɓe o fof so a yii saare saare o fof ɓe heewi probléme kono ko probléme gooto woni mawɓe o fof laamu kam ko noon ko onon woni probléme ji probléme ji mawɓe o gambia o fof mi wii rewɓe gambia o alaa golle o alaa fuusɓe hay ɓe nanngi mo saya higa gese ta ndiyamo huuwi golle wala so faali wallamo alfaji o a heɓaani golle hono wadda hay fuu so waɗi so nabbi biddo ma ka grade twelve o grade nine o huuɓi o heɓataa golle grade twelve o huuɓi o heɓataa golle hay gambia college a heɓataa golle hai university gambia sa gayni mo heɓata golle kon joni ko yefi golle woni probléme gambia woni si tawi yimɓe o haraga o wi o faali laamu il faut me lanndi mo hono woni feere mao ko minen ɓe nani joni halifa sala o heeɓi plan o heɓi feere o heɓi ngandal mo golle gambia o heɓi yermande kono ko ɗum tagi mi wii disembo fond mine fond ɓe yahi ɓe jonni mo karta o pdois e halifa sala o e jarama o on jarama jof bandiraɓe enen foof nani haala ka eh, allah waɗi comme no o haaliri ɗo ni rek jaadigal siko haa ɓooya moƴƴa siko haa ɓooya moƴƴa oto dow goonga tan fawoto ko ɗum waɗi o wii o hollaama jogiiɓe kaalis hollaama jogiiɓe matériel o kono ko jogiiɗo o feere ittude tambere kanko ko wono tawdata de o ndaaraani jogiiɗo kaalis nden noon haa jooni ɗum ɗo fof no okka en hakkille ñande fol dixiéme ko hoɗum poɗɗen eh, wadde siɗen jiɗi koye men e eh, to wona kanko tan heɗen gondi kadi e eh, kelifa mawɗo mo ganduɗa allah waɗi kanko hannde o tawaka e yewtere nde ɗo o ruttinoɗo bajul woni bayi biran diagne mo app all people's party kanko e oɗo fof miijo woto ɓe woni kan kadi o tawti ɗoy e dow ɗum fami ɓe sikki tan yimɓe bayi biran kadi app naɓe heɓe ɗo ɓe calminama ɓe teddinama ɓe mbeltanama on jarama I can hold it. I can hold it. I don't mind. You don't mind. Awa. Ɗum ɗo kadi ko dalil waɗi ɗum ɗo ne no ari ɗo. ko kalten ɗo ko comme no mbiɗen ni balɗe nayi décembre enen goto he men fof kala jogiiɗo kartal ñanden a yahat ɓe okkuma caaɓi maɗi ɓe mbima ya udito e suudu ndu jiɗɗa ndu nattude kalifa nak haala ni ir kanko suudu ndu anni en ndu si en ɓangi caaɓiji men kala jiɗɗuɗo jiɗɗo nattude e suudu ndu halifa windu siɗa ɗaɓɓita ɗo mbat eh, suudu ndu kullor o ko ni way sokola mi keesowa cokule kola o heɓat kadi portolal makko e keese ɗum yonani e no waɗi tamansere kadi nangue ngeni no wayno hood ganden kartal fof ngal pawɗen dow keese ganduɗon perdingal kontatake dow payib ga kadi si a fawi dow ga natani nder keese ɗum ne ha joni perdi a wuddere nde jolla toon kayel ma ngel ko ɗum woni a nattini caagi ɗi pour cofta si a heɓi caɗele pour yollude kaaƴe ɗe ejentaji njooɗiɗ ɗi ɓe toppito kulle woote o nodda gooto e maɓɓe hay parti doye o heɓa toon ejentaɓe kala mo nodduɗa hen kala caɗele ɗe keɓɗa si a haraniɓe ɓe kollan ma no mballirta no ɓe mballirtama ha mbawa weddade karsal ma Bilang mantan di nafala pantai tani, mantap komit ke bani mon, pokok tini wahai tadi warna regulasi pasara, pasjarama.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 فكنتم منا على التمام والكمال والمحز من كل الحال وارزونا زيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا باللقاء يا ضيال استجب دعانا بحق توراة والزبور الفرقان اللهم انصرنا منصر الدين اللهم انصرنا منصر الدين واخذل من قتل المسلمين امين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين حرمة اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما اقلق والخاتم لما سبق الناصر حق بالحق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

kalifa salla e dendangal ɓe o ardi ɓe fof de ɓe délégation maji mo fof ɓe fof mbiɗon ɓe calmina mbiɗon ɓe juuro mbiɗon ɓe mbiya bisimilla maɓe ɗon e minen ɗum won min mo weltare mawde hande de ko argo ha nde saare ɗo o waktida yimɓe ko gueɗe tan wonani min toon sunu seeɗa waktan mo ko raɓɓitta ko siko saago amen programme mo juutanno seeɗa waktan mo juuta saabu wakta haala maɓe ko ɗum deftere huɗum weli jentino huɗum jari jentino ko on ɗon tan wonani min toon onin mo kono siko sago amen ɗumata wattan mo juutanno mbiɗon moon mbiya bisimilla nder ɗo on jarama jom allah addumon ma e jaam yo on nawtu moon e dow jaam jotto eɗen e dow jaam allah ɓumnanamen leydi o a jarama jof alkali eɗon mbiya amini o allah jaaɗin duwawuji ɗi e bandiraɓe comme no o wini hay minen ne ko ɓurannomo ko minen ne noon ɓurannomin taw ko waktan juɗɗo kono ɓe ndigol ka fa e wota inchallah e ɗo heɗen fuɗɗe fuɗɗatan mi holliramon hellifaɓe gonɓe ɓe e gorga he mbiɗon ɗo wondi e honorable sidia diata député wulli mbiɗon gondi e honorable ousmane silla député bañul noon mbiɗon goɗɗo mo mbiyata mo bay biran diagne yeesojo app mo

kenn ëpp leen doole ci réew bi kenn ëpp leen baat ci réew bi waane nit su xamul ki mu doon du xam li mu moom su xamul li mu moom keneen moo mën a ko boppam moom mu ñàkk ko kooka nekk ci àjjana ci kaw suuf moom mu nekk ci jaxana la ci kaw suuf loolu moo fi nekkoon wante nag door nañ yónni génnee ko ci 2016 te eggaguñu ndax juróom fukki at ak ñaar balaa 2016 ko wax ñu ne la baadoola du bëri ak nguur baadoola du bëri ak buur carte wote mënut a daane nguur bon nag waxtu nekk rek nekkal ci gannaaw nguur moo gën ci yow loolu lañ soloon ci seen bopp yi waane ñaari fan ci décembre ki ëppoon doole ñëpp ëppoon alali ñëpp ëppoon baat ñëpp télé jël téléphone am téléphone koo xam ne kenn mësu koo xam ci politique yi Gambia balaa moo taxaw pour nekk président na jébbal naa la nguur gi lu ko waral seen carte wati ngeen door di xam nag ne buur nekkul ci suufi Gambie waane ba tey nit ñaa ngi tiitoon ñu ne leen dal leen fukki fan ak juróom-ñett dina génn ca palaas ba wala mu dal di nekk rebel ci réew mi anam tey dem na lu ko génnee fetal déedéet lu ko isi woon fetal waaw lu ko fi génnee seen carte wati mu mel ni xàll ngeen yoon wi nga xam ne yéen a ngee moom si Gambia te eggaguñu fa ndax bés boobu doomi gàmbi bu nekk waroon naa dóor dënam ne nekk nii laa baree doole nekk nii laa amee baat ndekki président du buur ndeke liggéeykat la ndeke suñ njiit rek la bon na fi mu nekk nii balaa ma jëlati suma permis di ko dënk nit di ma génne ci ndóol génne suñu dëkk yi ci ñàkk mu nekk gannaaw 2016 ñuy jubale 2021 doomi Gambie bu nekk dafa waroon a wax wote bi ñëw nii soxla naa koo xam ne dina ma wax naka laay génne suma kër ci ndool naka laay génne suma dëkk ci dellu gannaaw ne maa ngi toog nag taataan suma nopp ñi wax ne dañ bëgg a nekk suma président nañ ma wax lu leer naka lañu ñoo dàqee suma coono ma woteel leen ngir dalil déglu leen bu baax wote ñëwagul ñeneenti fan la ci décembre wande arankees bi ñoo dénk si président waxtaanee nañ ko ci néegi député yi bi d'accord ci léegi nekk na loi te tànnaaguñu président bon alal ji jógeewul ci poosi président de alal jàngi ci toll ñaar fukki junne million ak ñetti junne million koo leen tànn pour mu nekk président arankees boobu moom laa njëkk a te juroom fukki at ak juroom benn koo leen tànn président mu ngi jore façon yi arang kees kees waa alal boobu suñ ko denkee président seen waara ngi ci waxtu ID card dugal dugal xaalis kees boobu waxtu drivers license dugal kees boobu soo jëndee marchandise itam du du nga fi juuti mu dugg ci keesi keesi wante si ñëwee pour jaay marchandise bi la fay keesi nguur gi daf koy jëlaat tegaat ko ci njëgi marchandise bi jaay leen ko bon baadoola bi ooyee boppam baadoola ndekke mu ngi jël xaalis di ko dugal ci keesi nguur bor bu set seen alal la moo tax kañ koo dénk nekk président dafa war a istiwaat alal ji ci seen kër yi génne leen ci coono ci seen dëkk yi génne leen ci coono ci naka ñu ne su réewi Gambia barke woon seen juróom téeméeri junne xalal yi nga xam ne fukki at ñaar yu nekk dinañu génn uti liggéey luñ liggéey mu nekk tamaate dinañ am facture boo xam ne dina ko jënd ca fañ ci naako yi yóbbu ko ëlbati ko mu nekk loxati seen doomi réew yi mun caa liggéey loolu alal boobu itam di suqali koom-koomi Gàmbi pour jële tamaate mbitim réew isi ko ci réew mi rek at male ne fere nañ ci juróom eh, ñett fukki million ak ñetti millions yi dalasi seen gerte gi nikoon dinañ ko jënd yóbbu ko ëlbati ko mu nekk diwlin ndax pour jëlee diwlin mbitim réew rek ci at male ne passé ñu ngi ci fere benn junne million ak ñaar téeméeri million alal jooju yëpp su fekkoon na am nañ factory dafa toog ci réew mi suñ doomi mi di mun a ab liggéey noonu la ñoo joxee liggéey suñ doomi réew te loolu la doy nar a def mu ne système change nañ génnee li fi nekk amuñ benn factory juróom fukki at ak juróom benn léegi dinañ samp factory ñu ne emul ca loola pour dàqandool ci seen kër yi gannaaw alal ji ñoo ko moom dinañ taxawal bunt boo xam ne bi coopérative banque laa nekk soo soxlee engrais jiwu machine wala nga nekk ci garden yi soxla ga ñàkk ak itam ndox ca garden ba nga soxla jiwu machine dinañ la ko jox nga dem liggéey ba pare delluwaat ci kees gi te interest doo ko fay su fekkee ne da nga mun a defar ay sëri rabal wala di defar ay saabu ak loo mun a mun a defar di nga di nga am xaalis ci baam bi liggéey delloowaat sa am-am di gën di yokk soo nekkee borom métier ndax da ngaa jënd machine yi walukaay di olbati suñ dugub bi mu nekk fëriñ ñeneen yi di ko jël di lakk mbuuru koo xam ne kii daal pare nga kuul liggéey weldes yi xarkati bant yi sarpanc yi koo xam ne kii yaa ngi ci suufi Gambia di business di bugg a liggéey di nga mën a am ca kees googu liggéey delluwaat ci kees gi te doo fay benn bénéfice noonu lañu nar a doxalee réew mi moo tax ñu ne système change yow soo amee nag sa njaboot am kër gi dina war a baax ñu ne dinañ am compagnie boo xam ne dina la sampal ngay fay ndànk-ndànk loolu la ñuy woote ñu ne nag seen dëkk yi ñaata at ñu ngay fay naamu di fay laysin yi di fay juuti yi di fay nakki juróom fukki at ak juróom benn yéen a ngee fay soo leen fayee ñu buub ko yóbbu area council doo leen ci gisati dara parti boo leen mun a jox area council feeg doxalin boobu wécceekuwul dara moo dul wécceeku ci réew moo tax ñu ne dinañ yokk doxalin bi dinañu wécci doxalin bi lan lañ bugg a mu génne leen ci coono mooy ne ñun dañu ne kër su amul dapaas tas VDC bu amul arankees naka la essayé yokkute ci dëkk moo tax ñu ne suñ doon doxal réew mi naamu bi gën a jël di fay ci dëkk bi juuti lay si ni mboolem mbiri nakki mboolem lu ñoo fay ci dëkk bi du demati area council dafa toog ci seen keesi dëkk bi xam nga ndax dégg ngeen li ma wax du demati area council dafa toog ci seen keesi dëkk bi su ko defee at mu nekk VDC bi ak waa dëkk bi dinañ toog ñu waxtaan ndax yoon yi lañ war a defar ndax ndox lañ war a yóbbu ci naako yi ndax dañ fa war a def wër wërngal ndax seen njiyeef yi bu mu yàqu ndax ni ñu war a amee ndox mu yomb ci jigéen ñi loolu lañ war a def ndax dañu war a def sola fu nekk am lamp ndax dañu war a am lopitaan bu ndaw jàngal waa dëkk bi ñu toppatoo ñi nga xam ne suñu matoo soxla nañ toppatoo su fekkee ne xal naa jafe ñu am ci boor bi nga xam ne gox bi yëpp dina nekk seen eh, eh, eh, ambulance su ko defee ci saasi ambulance bi ñëw mun a toppatoo kooku ndax dañoo isi yeneen defarin yoo xam ne mooy tax suñu ndaw yi moom seen bopp sopp seen dëkk nga xam ne dinañ leen utal fiil jëndal leen football jëndal leen wes nga xam ne veste bi veste yi dëkk bi laa def nga xam ne dëkk bi moo leen koo jox ñu xis ne nag dañoo dem football yi pour darajaal dëkk bi ñun loolu la ñuy woote su fekkee nag ne projet yi ñu bugg doxal am nañ ci mànki manki kees gu màgg ñëpp ci war a jëriñu bon nag dinañ xaa ca kees gu mag ñu seddaale ko région si xaalis boobu mooy war a nekk nag ci kees area council su ko defee yéen soo leen amee projet ngeen gis ne dangeen ngeen am manki manki ñu jël ca kees googu ñoo mottali leen ndax seen projet mun a dox at mu nekk dara defaru at mu nekk dara defaru at mu nekk dara defaru juróom fukki at ak juróom benn su fekkee ne doxalin boobu moo nekkoon ci réew mi ndax dala ba war naa mel ni mu nekk nii bon nag waxtaan waa doxalin moo yóbbu réew kanam doxalin moo ko delloo kanam doxalin bi nag mu ngi aju seen carte wote yi sooy wote da wote ci dalil wax naa leen ni ñoo dàqee ndóol ci seen kër yi ak ni ngeen dàqee ndóol ñàkk ci seen dëkk ndax seen dëkk yi jëm kanam su fekkee ne gom ngeen loolu loolu war a tax nga jël sa per nga dugal ko ci suñu kees soo gëmul loolu ki nga gëm nga jël per bi dugal ko ci keesam waa loolu mooy wote ci dalil su la neexee nag nga wote ci maatey wote maatey nag ni daf laa dax ci sa nga dem wotetal mu jox la saaku maalo nga dem wotel ngeen bokk xeet nga dem wotel su ko defee lum la jox rek nga dem wotel waaw ku otel nag ci Maatay <laughs> nga dal di am nguuri Maatay su ko juróomi at nag ngay kebetu rek ñun day dañ ñu fàtte ah seetal lii seeti coono gi seetal lii amul lale amul lale amul di kebetu rek yeneen juróomi at loolu mooy wote ci Maatay bon nag balaa timis gi di jot na ngeen bàyyi xel ne kenn ëpp leen doole ci suufi Gambie wante nag seen doole daf leen réeroon ngeen téene ay baadoola ngeen da nga ko dégg ci ni sax man day baadoola rek laa te ñu ngi amee carte wate de aw ma baat aw ma doole man kay béykat rek laa man kay jigéen rek laa man kay maa ngi seen gannaaw rek di wéy ci gannaaw maa ngi seen ganaaw rek di wéy ci gannaaw maa ngi seen gannaaw di wéy ci gannaaw ba dugg ci pax ma ci gannaaw te fekk yaa ngi yore gànnaay bi war a tax doo nekk ci gannaaw yi kenn ndax wote wuñu pour di dellu gannaaw dañu wote pour nga yóbbuñu ci kanam bon nag na ngeen xam ne seen carte wote yi mooy diigal réew mi mooy suqali réew mi mu ngi aju ndax wote ngeen ci dalil bon nag ñaari néeg la bunte bi yéen ko yore caabi ji yéen ko yore fu leen neex ci ñaari néeg yooyu ngeen fanaan benn bi kaso ndóol la kaso réer la kaso noteel la beneen bi néegi tedd la néegi taranga la néegi leer su la neexee nag nga jël sa carte wate mooy sa caabi nga ubbi dugg ci néegi tedd bi noyyi ba faw génn ci coono génne sa njaboot ci tool wala nga tëj sa bopp ci kaso ndóol bi kaso notel bi kaso réer nekkaat rek ci coono ba dee ci coono ñaar yooyu moo fi nekk ci ñeneenti fan ci dix-sept boo leen tànn rek xamal ne yéen a ko tànn bu mi njaam gi dagg na 2016 kenn ragalatul kenn domi Gàmbi bu nek gor la ku nek ben carte wote nga am opale wul sa morom dole ci soufi Gambia duñ la jox carte wote bobu ngir xet duñ la ko jox ndig diine bi nga joge duñ la ko jox ci family bi nga joge duñ la ko jox ndig dëkk ba nga joge ñu la ko jox ndig domi Gambia nga ku nekul domi Gambia nak warlo am carte wote bobu xaw ma xam ngeen wax ji moy ne ku ne suma xet moo ëpp doole sama doomi réew yaa kooku bokkaatuloo ci Gambia ku ku ekkati xeetam ku ekkati xeetam ne loolu moo la yow Gambia gënalu la bokkaatuloo ci Gambia doomi Gambia mooy ki bugg a doomi Gambia bugg a ku nekk ci yéen naw la ngeen kenn ëppul sa doole doole sa morom ci suufi Gambia bon nag na ngeen xam ne réew réewi Gambie yéen a ko moom baati réew mi yéen a ko moom doole réew mi yéen a ko moom bu leen kenn def mu xat ci seen réew bu leen wàccee seen mbagg ci kenn kenn ëppatu doole kenn ëppatu leen baag ci réew mi yéen ñëpp ay nawle ngeen benn xeet tuutiwul benn nit tuutiwul ku nekk benn carte wote la ku nekk nag war a gëm ci boppam léegi buumi njaam gi dëgg na li ñu war a def ci 2016 bi yoon mooy dàq ndóol xeex bi in 2021 mooy dàq ndóol léegi nag mu ngi aju ci yéen soo leen nangoo pour jaar ndax ñu ngi ci digg cëll bi yoon wi mu ngi ñoo yóbbu ci tedd ci teranga ci leer soo leen ci paree jaar pare naa ci pour ànd ak yéen juróomi ak ñu tabax gàmbie boo xam ne dinañ ko naw ci kaw su soo leen ko parewul nag aw ci yooni ndóol bi kaso réer gi kaso notel gi ñu tàggoog yoon ngeen continuer ca yoon woowa man ma dem xàlli beneen yoon ci Gambie ak ci Afrique boo xam ne ci laa jëri suma askan ak suma réew wante nag bàyyi leen seen xel ci wote bi ñëw du wote caaxaan nit soo xamul ki nga doon yoo xam li nga moom de soo xamul li nga moom keneen moomale ko boppam yow nga ñàkk kooku pare na pour jox la xaalis ndax mu toog ca la nga moom ak ki mu alal nekk ci àjjana ci kaw suuf su ko defee yow nga nekk ci jaxanama ci kaw suuf lu jaxanama ci kaw suuf gidu ci coono màgget ci coono màgget ci coono dee ci coono doom ci coono dee ci coono set ci coono dee ci coono muy sa njëriñ la jël leen ba ci asalaamaaleykum maa ngi nuyu alkaali bi di nuyu kilifa dëkk bi yëpp ah ñu ne nit koo gis dëkk boo gis ak kër boo gis lu mu baree baree soxla lu mu baree baree problème dina am soxla ak problème boo xam ne moo gën a mag ñëpp moom la tubaab yi fundamental problème or fundamental economic problème dëkk boo gis am na ko Gambia bi fii nag ndaw la ndaw yi ñoo fi gën bari sun problème bi bu si gën mag mooy ñaaka fu ñoo war a moo tax ñu ngi gis xale di dem si géej bi ñu ne dina ñoo dem Libya ñu bari ñu fa dee dee fu mu nekk bi nag wote bi jot na man tam waa ñaamina la tampere yi fokk gooto si tay ka faro ka gese si tay ka am ko gaynaa ko tampere yi fokk gooto léegi nag ñu ngi war a taana nguur dama taxawoon président waaye bu AIC ñu ne juróom benn nit ñoo war a taxaw ñun tam dañu war taana nit am nañu dee wax ne yaaton o heewi xaalis yaaton o heewi oto yaaton o heewi palace. kono so a heewi xaalis a heewaani feere a waawataa golle Gambia so a heewi oto haa o heewi a ngandal our, our God let down here. Politics, one IFP palace. IFP gold. Konsunye na waratana, ni waratana, nyungi waratana, siyen sarta. Nyune, sinyeti sarta. Number one, na neka sunyotana, na neka njit bohamne, amna pehe. Number two, sunyotana, nañ taana njiit boo xam o heewi ngandal suñ buggee taana iliman ko ngandal naa dum suñ buggee docteur mu faj danga uti koo xam ne loxom mokkana kon léegi président nag président nag ko ngandal kon ñun alay Gambia time bi jot na am na ñu lay wax ne naa doy mi anndi doy ko goga o haale kono mi jonni carte ma o goɗɗo kono fannga tahaw subegene ŋane degal nga degami halifa sala ko gonga o haale sidi jata ko gonga pdos ko gonga a jonni carte ma o goɗɗo cilo tahaw kon léegi time bi jot na bi jot na ñun waa Gambie xale man teacher la dama dee jàngale ñaari fukki at maa ngi jàngale am school bu tudda Jolof tudda su fekkee ne awma xam-xam sax waaye su ma gisee borom xam-xam mi andi so léegi nag léegi nag 2021 December 4 jot na pour ñun waa Gambia lii nekkut ne man maa yow ñun ñoo du loolu ñun jullit yi bugg nañ lu ne te war nañoo am lu ne alquran bi moo ñu jox lu ne fa bi ayyi alaa'i rabbikum tukazzibaan ñu ne ñu ne borom xam-xam yi soo demee ba dee nga war a dem arjanna yëfi politique du yëfi àdduna rek sa arjanna bi foo ko liggéeyee na du fii waaw fii la xanaa nga gom ne am na beneen tekka bu nekk ci diggante alaxira ak aduna amut kon sun àdduna bi fii lañ ko liggéey boo demee Tuuba yaa ngi gis néeg yu rafet boo demee Mokka yaa ngi gis lu rafet borom xamaa ñu ne su malaayka yi suñ la téye bet bugalaa dugal aljanna nga gis néeg yu rafet am na ñu dee wax ne min qabli Lilan lañ doon gis néeg yu rafet yi moom lañ doon gis ci àdduna bi alquran bi moo wax gurfun fawka gurbatun tajri min taatiha al nahaarun xaaliduuna fiiha abadan kon ñun julit dañ buga lu ne dañ buga lu baax te lu baax daf ñu waral ku eew suba teel sa néeg mu am pompe nga buga julli julli fajar nga ubbi pompe bi ndox bu tàng ndox bu bu mu ñëw xanaa loolu du taranga xanaa loolu waroon ñu si aduna be kon suñoo taana dañ war taana koo xam ne woon nañu am na pexe am na ngandal wadu naka lañ mun a dundee dunda bu baax si Gambie bi si aduna bi fii loolu moo ñu waral tey suñ ndaw yi ñoo mun defar suñ kilifa yi ñun suñ amutee fu ñoo liggéey ban dëkk xanaa cee ñaari ñetti Chinese mun na ñoo sampa Gambia yëpp ñaari ñetti tubaab mun na ñoo sampa suñ dëkk bi ñun ndaw yi ñun ñoo war a sampa suñ dëkk bi soo dañ bugga koo xam ne dañ bugga koo xam ne daf ñoo jox doole jox ñu paye jox ñu xam-xam ñu mun a sampa suñ dëkk loolu moo tax ñu ne Zulkarnayn mooy Baabili Mansa ci alquran bi yàlla jox na ko lu nekk ci sampa dëkk يا ذو القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجل لك درجا على أن تجعلوا بيننا وبينهم سدا بنكون كايسا فللوا فأينوني بقوة جمع حلي ما ديجي دكبي امو بن دكتي ادو نبي بو boo xam ne liggéey حلي نكون فا xale yi بجنه on December fourth, New génn can moo war a gis leer ngay dem si lëndëm nga foog ne di nga dem si kanam kon waxtu bi jot na waxtu woo fotti jooni gonga woo fotti jooni jaal haqqun wa zahaka albatil wa inna albatil kana zahuka December 4 ñu génn ñu saani PDOIS ak Halifa Sallah assalamu aleykum jarama on beltanam e, joni enen foof en nanma ɗum heddi ko tohemen foof ko jiɗɗa hen kala mbaɗa ñango wuti fotma ko haalma ha labma kono kala mo ngannduɗa ɗa yiiɗi fampanago karte ko o wi ko leer gimmoɗa e nibre e kees leer mo ko mo woni kees honorable halifa sallah mo piiɗi wa s kala jiɗɗo ngol yaago yeeso o ko mo kees ndaarata ñande ɗafam ko ɗumor kees mo ko ni o wayi sokola jiɗan hay wutemo mo ɓorni mon haani ko on ko sokola on woni couleur maako e datiriɗan kisanne a yiyete maako portola mo ngannduɗaa ko portola honorable halifa sala a yiyete kisa mandarga taman seere nangi ge onne wonaten kisane pour ha joni mbawa hettin ɗoyiɗo poɗɗa ɗo fambo fambotoɗo hanne wota faw hayre nde dow keese nde perdat nde kondetake wota faw e dow payte nde perdat nde kondetake wotamo waldi e leydi jaaɗa nde perdat nde kondetake gotto fof si a arma a larat pay mum waɗi wuddere nden wuddere ɗaɓɓitta ha jiyade wona heɓɓare ni wona ñalgu heɓɓare ñanden o resdirgo gurdam ma duuɓi joyi on heɓɓirtaake tayima udara nde lomba ɗon hayre nde kees momo waɗi lenguru sine nanma tan o han anda nde nanmaɗa lenguru ɗo waɗa kele ona fo on nanat ɗum accitane leki on jarama e jafoɗon min waktu alata hen fuduro fodma e fondi kooli ɗi mbino beɗaɗa calmina tan mi wino mbiɗo salo kono mi sakkoli wi tan salamu aleykum e o salmina tan gaccireni kutorene koko ari ha fay assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salminma jooma saare o mi salminma helifaɓe saare ɓe mi salminma rewɓe saare ɓe mi salminma yuuteji saare ɗi mi salminma e délégation gonɗo moɗo he dow inde honorable kalifa sall to ko jinmon mi haalan seeɗa e halifa sall kala mo andanomo anan mom bila en 2016 e bila élection mo yawti allah wiite billahi ala mbawɗo nan ala mbawɗo heɓ kibaru nder gambie alla pasque wona he halifa sall den halifa salla wona hoore maako o yiɗi ko leedi ni o yiɗi te halifa salla ko alla okki mo ngal ganda alla okki mo e den bernde alla okki mo mon miijo te halifa salla homo yoni e homo yoni ko leedi te halifa salla mo yidi leedi te mbiɗen yiɗi enen fof den tan okken karɓe halifa salla nda o fondinan mi heɓo gonɗen ko jinmi haalaa ñin mi haala halifa salla e minen yuuteji ɗo en ko min woni youth leader yuuteji fof ko ɓaw am ɗin woni kala ɗo mbimi ɓe hoɗon ɓe jahata halifaɓe amen ɓe kala koɓe mbimen ko onnen mbatta nden mbiɗen ɓaw halifa salla halifa salla anda yo halifa salla anduɗen yuuteji ɗi mbiɗen keɓi caɗele mawɗe mbiɗen keɓi caɗele mawɗe sabu so a yima han e mbiɗen miijo yaako baako ɓe komin ngalaɗo men nangi te on ko ɗum caɗele mawɗo he amen te sengo yuran spol mbiyen toon jiɗi sopporno bete no wona seeɗa si wona men ndemoy min cooɗi veseji min mbawa he veseji si wona min tek min cooɗi bol min mbawa he bol te te wiya yul an sport heɓe jogui e heɓe jogui jawdi nder gambia kono mine men ganda sigono sago amen ni halifa salla ko o ñallana ɗo walla o walana men min kalana mo caɗele amen ko woni nder saare amen he tako woni nder ñamina dankuko district ñamina dankuko district ɓuuri fanɗu nder district agiji fof kono minen ɓuuri tampo sabu on nattum gay on jima min ngala golɗe min ngala courant min ngala hay hay jiɗɗa han yar ko ma jaha poloya nden halifa sallah men eyi min desdumon mo hoore am si allah jammo 2016 2016 ko wiyete wiwo sallah wiwo sallah 2021 ko wiyete halifa sallah 2021 ko wiyete président halifa sallah 2021 inchallah ko wiyete wiwo sallah te min jardu moom min jardu moom hedow 2016 ligguey mo liggali mo gambiya min ganndum halifa sallah a waɗa cuɓi ceerni nder gambiya wasala min jilla hakko heewi kono waktu ala mbele men e toro si tawi noon mi haali hen caɗele jaafo ɗon ko haala way noon ko feewi koto allah ko jumde sino tan koto koto am ok moƴo jarama wassalam Oh! miren, miren, miren, jaa jëf mbokk yi yéen a ngi seetaan TV li ngeen nekk di euh, gis noonu muy ambiance bi ngeen gis euh, bi euh, Halifa di dugg dafa jeexal beneen région wara a dugg ci région bu bees muy fi nga xam mooy LRR ginnaaw mu jeexale jeexalee CRR gis ngeen tamit région bu mu dem welcome bi nga xam ne gars yi dañ ko koy jox muy région yu mu jaaragum yëpp léegi nag mu ngi ci beneen région bu bees muy. ila rar gis nga welcome bi nga xamne ne defal nañ ko ko wa jaara ñep genn di welcome fi ci euh, Pakaliba euh, fi moy force euh, sport meeting bu mu wara am xamna ne ci kanam dinañ leen baye ngeen seetaan enjoy li nga xamne moy ambiance bi lata ki nga xamne moy honorable Sala di jël li nga xamne moy mooy gi ngir waxtaan ak askanu Pakaliba ci region bu bes bi nga xamne fi moy dekk bu ñak bu mu wacc ngir waxtaan ak ñom waye region ñu jaar yeb gis ngeen nu mu demee Euh, fu ci nekk rek da ngay gis ne ñëppay génn dëkk buñ ci dem ci région yooyu ñoom ñëpp ñooy génn di euh, teeru ki nga xam ne mooy xalifa waaye di déglu message am tamit di ko wax ni après nañ ngir ànd ak moom ci euh, système change bi nga xam ne mi ngi koy woote léegi nag ñu déglu waa LRR ñoom it nan la ñuy jëlee recevoir li nga xam mooy message bi waaye fii ci Pakaliba ñoom nga xam ne mooy dëkk bi ñu dëkk ñëw fi moom Euh, système change système change rek lañ nekkoon di wax ndax gis ngeen seetaan ngeen ambiance bi duggu si bi ak nu mu demee lépp gis ngeen yéen a ko gisal seen bopp xam naa ne dinañ euh, continuer di leen ko won su ko defee rek xam naa ne euh, soxna yu jekk yu taxaw ni dañuy waaje rek daal di way su ko defee dinañ leen bàyyi ngeen seetaan ko laata rek kàddu yi di fi yi fi war a jib ci diggante Halifa Sallah madi Kurang

ndelle suwa kundi oɗo manke kasidi silo wolta kayra alama min maftala kayra saye mbe min kala mbe alfatiya le tala min alfatiya botala eh, mbe the representative of the alkalo nga kalamdam alkalo wonta on de gamba representative ɓe jane min ɓe alkalo to yala jamba kumandira ase lunta on bisimila sate kono ne o bota je luntan kummalo yimɓe silo kamɓe wol fanan kandila o bota je ise mool kumande ise dundiyamol kono

warahmatullahi taala ah, mbali barakatuhu mbaali nal kontonnal tonnal kontonlam mbe e, halifa salla mbe mbe mbe welcome la ñin sato kono jam ñin sate guñaari mo men ko pakali ba ɓayi e, jande bentolu bulu momo yemen soto ke ŋaña wolela ali kalo fango alhamdulillahi ama sorono sotono tarranu jam ne somanda bayri ya fanyo ko kabrin telenta ma fali na futala nun jam e tarranu jam kabrin salfana salida e murra nan ko ka alan saro salde murra nan bari abe mo kayrole bayran be melu fanan bulu wol mun tor nyankilin wolle banko di wolle mu andon foye kibaro futandi molma e be duwala ye baka simayala ani jadi kende yala sidiya adamun na di amanka bidi na metale andon be nyobulle be bori nyokana masuro ni tilo ko akamunda ko suwayi buñol fanam ben bulu ñame bayri te mula mole di jang alhamdulillah kabri sa jo bankura almani mari kafar kalaye kabraye donc man soma ina ta nan mi e bulodi ñola wona ta na kenya kontano di bake e eh, alkalo ko sa tawde alhamdulillah sa taw bidam mole bidam andum kibaro mobe lafta wala la purko wala moy atoda hada badi wala kibaro men foda ya kibaro muta nyaadi de faabe nafala fabe nafala watulede kuŋola bulu bari kibaaroo sindoo moolu ma wolu maal la ñantoolu le ti meŋ muta dulaa meŋ baali bulu ali ye a ah, fo ñe ndafaŋo kundiŋo ŋa meŋ loŋ pdo is to a keta ñe kontaanoo ti baak bayri niŋ a je ko système change ntolu ŋa loŋ ne kunuŋ le aniŋ bii mbe ka ñaadi le anduŋ niŋ ala sonta wo le ñaŋ na kela ko mbe ko kunun kabiri bɛ kɛlɛ o kɛra bɛɛ bɛ kafuru ɲɔgɔn ma lasangaje ko nafanko itara lori lo bulo min kan nataje ko i man na londi no ñow lo bulo kan fende fon nga ñaton ko men soto ade man na wo jero keno ko banko dingole jero men ga pour kate tambindi ade la jero nata na ka mendi o kata da kumolati anala balala mol sa la fita ko na ngo sifa bonni komen komen na ke baka fo nyamen sudo ni tilo bari ndemula molati nke lamoy mbela foru moldo watu wati nka moy ko manya na wulula bata kono nga kulu bata kono nga fa bata kono alama ala ita biya tanko bodo mesim bondino bata kono wala mo halifa sallati alinga bamba ko mabetilo na bamba ko masamatilo ando ay fondin kawol lonne bari ndemu fondin kawolati ndemu molati ndemu fondin kawolati ñiŋ saatoo kono da alhamdulillahi nte leŋ saatoo la bidi si kiyamano ti a maŋ ka fayinandi te le mu niŋ ye a karafeema fo ye a yitandi moolu la niŋ ye a jee be laalanne benke la jee ŋa loŋ ko alifa sallañol yeŋ kulu ñaameŋ sidiya la kuluriña wala tinna ye lannoo soton na ye marandi palasoo la saatoo kono woto niŋ bawo saatoo kono nte si yamaroo meŋ kenoo wo le mu ŋa kafuñoo ma ŋa je ko ŋa marali kuwo soto kono ni nga ñol fanan tambindi bo maral ko kile ko soto la banko fanan ka ando ni ala sonta insha allah eh december 4 ba fola le bi halifa sala bi sala bi sala ramal na jola ramal seola ramal ko dan kairola ramal fitala kairo ko no kila ni sai golo rombodo dol bali e jande wallahi bali e jande sudo ni tilo andon fanan benna kadan ni go ke kande bayri mo moron ni message o le bu kibaro le fo nga di ñola fana ne mamba rawo eh, la de bari mol fana be soro kan men eh, ke la fana men fana al be soro sabu ni baraka ba al fal silo kan tan dal la al al salo le me mo eh, folo folo tan dal la wala mo right honorable halifa ababakar sallam le president New Bodahe, uh, the father of the Parliament Bejang, uh, Honorable Sidia Jada, a part of the New Bodahe, na Konike Jambaro, Minkada, Dr. Amadou Kurante, Youth for Change, Alhaji Dr. Mamadou Kurang, a part of the Bejang. So, Alta Kalabudo Nyama, New Bodahe, Honorable Usman Silla, a part of the no eh, boda je tay enin alpha jamal be silo kan alpha kumalu alpha miyalo koy buñata nde moɓe ɗo tan no wara we nice all your presence here to me min kala sa wala ñinde ko nde diyamula min kumandira so kuuta wato tatam ka appointment dole bayinde jara soma wala ɓe kala right honorable alifa ababacar sall o gambiyete alle ala semboote alle ala kaŋote bari sanji tan luulu anin fula jandin 2016 alla sembo anin kaŋo tilitalma mool ka fo ko katta keso buka mansa boyindi e lon ko mansa te kerin ɗon ka fof ko dooma ni mansabu ka ñoobari ima lon ko mansa tekkere mansa yaaɓe damen fo dooma yaaya taraje dooma buka kan soto abuka sembo soto sanji tan luulu anin wooro nga jom yaajulo kuntu pour nga dooma yaa bonndi ñim banko kan gambiya diŋol yeke e fanti ila kaŋo yeke ila kaŋote ila sembo yeke ila sembote e kana ke jonti ila banko ila wulo banko wala mu gambiya din yaati inin bee ye kaña te semantaya man tara banko din yaati bee katta kese kilin wala bentel beegol bari wo kolya ndunta akono kono ñaawo kato keta fo disemba karo tilifula momey ya lonko ko ala sembo warata mo bela semboti ala kangole warata mo bela kangot ala nafulo siyata mo bela nafulo a telefono ta ka mo kilime ya lonko ko mo nene ma lon politiko to janni abelo la ya. k'a fɔ ko a ye banko la sembo sen di a ma mun ne y'a nɔ ala k'a kɛ kaso a balanta mɔɔlu ye mun ne fɔ a bulajɛ fo tele tan ani sei januwari kalo ala waato bɛ ban na le n'a lafita pour que continue a bɛ kɛ la rebellion tɛ nin banko kan mun ne kɛta a taa tɛnɛ kidi kesole ya naati mune ya bondi allah karta keso allah carte keso mante catanoti allah karta keso mu sembolete allah karta keso mu kawolete allah taamu gambiyete wote wo manke folo abe kele tili naani disemba karo bari jenni wo watoɓe siila aran keso men ya lonko alba karfala mo mo men ganyata wo fota foka bang fo akata luwat men be aranke so kono dala si million wuli muwan dala si million wuli anin sam dala si million wuli muwan anin sam mo man ke chakano tide alla id card kodo be je ni yo sukuro san ko ni ya sam bitikoto isa fo no yafen dundi bankola aranke so bawa men ya naate aka tambi custom aka juuti jooje na bala marchandise o waatila aye jo aka la marchandise o dakal ka wati moy woto alka men sang bitikol to a safono ye fen dondi bankola aran keso wono aran keso alle tamu woto ñin wote wo men be naala an wote wo men tambita imanke kelet wote women tambita moman jikki ko aɓe bonane akede jakalotimol bulu ko katte keso yabondi bari wolugo gambedigol be ñanta ila siso konkonda ka foko gambedin kuto wuluta gambedin kuto men yalon ko atakela mola jongoti kote ke ñimbanko kan a kalmo lebe tamale ñimbanko kan ala sembo lebe tamale ñimbanko kan sanjinnaani kaŋo man taama sanjinnaani sembo man taama bari mbe tili ndin wote wala tili naani di semba karo lebo luŋote pour ŋa forya sabatindi na banko kan jon yaajulo kuntuka bari forya man sabati folo de doobaaya anin foreya muka ke nyo ɓolo doobaaya man hadamadiŋo wati doobaaya mu joŋyaa le ti wala ya kendir na kele fulan jamo de kela disemba karotilina na pour que doobaaya bayiñin bankoo kaŋ moo kono mo beye tara e tambolo beye sewo wole mu na kele fula ñangoti naal sont fo kelo ima e gañe abe abe ate bete ala de ate bete ala woto momo men lota jang bi a ñanta men fola wala mo kodo membe ɓe aran aba to a bamurundila korda kono ka bayabai, baya bay aba bamurundila ñaadi na saate to kañum dibo be bayi kañum kajaliya be bay na saate to kela yerwa suuf lopitano yettara tarje karamugo ya tarje silo ya tarje yo ya tarje koko me ya loko sate te la kom anyanta soton sate nyan te plan la ta banta ibuka tenda santu santo no. an wo be mu londo le wo be mu plano le jannin ka ban na be be la ko ya ka ko nyame karodin lo. wata kumma yata alsa kalamuta ko ni mo lota jang amayi tendi wo do yente mulla allah kodda kono ko foariya bayi kamuru sate kono nyin kombata bayi ni momake aman fem fofol isi banko karfa dalilo kan wala ye banko karfa nidiya kam janniŋi be banko karfa la dalilo fo ye dalilo ye nyininka so sañi mune mun tolla dalilo munaya kendi bataɓe keeri fonnin ke wuli keme luulu sanji tan ani fula kono wuli ke ji ima doko ko soto iɓe dow ko soto la ñaa wululaal ke dindigol naati duniya kono ka kulli ka tolamo kendola ke jikki ko na kebayata aɓe nola ka fan nafa kala wulla nafa kala banko nafa fo haariya kamma dool buka buka continue fo ila kara mbumoto eko jiile dool ni jiita ibuka e dokkoso dool la sondomo ko kuuya fo ye kuuke men ya lonko ni famañol bamañol yaje eko ala dane hani na fata wole wole wetyata wole fesyata ye ban dool ka fo ko e bamañol le mom futu wole ya kende a ɓeten wari tubaab du dinnigol ɓe kutu ke kanne mu de a kende ibukela e bama kuwo fo woto alsa kalamuta ko banko banko wululal fulale ɓe a folo men ke naati kono na fo haar yaata abuka ku keno ye aka katale doron wulula fula jango wole mu bankoti men ya lon ko dalasi million wuli mu an anin saba sanji kilingole kono abe karfala a pour ayala dingol toppoto ke karandi ke kulu ke ɗi meccola ke ɗi dokola pour e coxidelo ila e bankogal wo wulla fulañago wala balanta wala kata balannaati pour ko allah dingol toppoto wona ya kende sañi talluɗo ana wooro allah dinndimoɓe ñi batale ko ko ɗum sahaare des personnes ko du baa kono ko faaje ɓaawo iman wululaade so décembre tilli naane wo wululaale ñanta sotola bon ni wululal kateteno ni mentego dokuta nakoto musol to wulila fa factory le betaral ye ke taraje ka sal ka samba factory to ka yelmande ay ke menten pototi dinnugol yeddo ko soto ni ñin sango men tambita Yemen ton potom bon bi banta ay men ñi ka banko bulu dala ce million tan sey ani sa ñi desi do ko no ñi bakko banko la banko la bunda asi yirwa asi jidi fondi kele do ko e sa natio sasan ka yelmande ay ke tuloti ay ke majir in botati ay ke ay ke safunot factory yo lo ñi banko kan no banko le do ko sa ñin sango men tambita nga diwlino men bondi batta ka naati ñin banko kan aye men ñinin ka banko bulu dala si million wuli kiling dala keme fula one point two billion nsa do ko no ñin banko kan wo ko do si tulo ñin banko kan kena banko la fonko la bunda jiidi fondi kene do ko sa wata kaca soti ya kamma ntol be ñin banko marata mbe addi central bank mbe bunda londi la je ngam même fo sovereign wealth investment fund be wole tala ka pattiyol lo be wole tala ka ñemuta ngol sang ko me ya lon ko a sina fankola bunda jidindira wo fon ɓe dunna wo bundal bari fakti lo amanke lokun kilin to barin tol parata pour que fo haria bay janni jannin yollo ɓe kala ñaadin bawo bankola aran keso mu tekole woto bunda be je me ya lonko abe kala cooperative bank pour mun kamma ka fuhari a bayyin banko woto bankola aran keso to talato be bondila ka dundi wo bank ni kete sene laati la fete dembando la turla sene jorangol yettaje ko do yedi yeddo ko ke yamurde aran keso al kete gadin tiyoti ilafita sansaŋol la ilafita jiwol kele je ilafita jambannol la tulol sene jolon yetta je ya soto ye dokundi ya murudu keso kono interest te lalata ni keta moti men ya lonko ika safunol dada ika business de jamake dol men ya lonko meccetiyomu ilafita turlal machine la pour kena ñota ka yelmande ayke flawat so foriñot dol sa foriñota ka mburo jani jorongol men yalon ko wo be sake wo jorongo ni lafita isita bank ka soto ka dokkunde ka murunde keso kono interest lalaka ni keta weldati mecciti o mecciti o men lafita dokula isitano je ye kodota ya dokkundi ya murunde keso kono interest lalaka banko be be dokko kelale banko be be soto kelale wulla ba sotola dinnigol ba sotola janning factuyol be lola kuke ni wullal ya soto dindigol fana ya soto woto kordaɓe yirwala le woton ɓe kafolola men ya lonko bunglola kafo mum e sila kela bungol lo ya doman doman jo jiɓɓele ɓe je woto peca sotoya kamma n si fo har ya bay gambia wala mo systéme ceñti n tol parata pour que wo systéme o tamandi pour que fo har ya ñing saateeɗum mune a kenndi aɓe tek momo men naata alka dañiro ke bohol ñanta sinno gaadino ñanta eh, diwo sotola e eh, silo tennin tennin ten sanji tallulu anin wooro sidiya ka ko ñaamen keso mambo jaɓat mune yaano ñin saate kannamo jooye bitikol men ɓe jang garasol men ku men ya lonko e ko ni sol ka jone bari ka ɓeele ta ka samba area consul sanji tan luulu anin wooro ka biri gambiya fansol wo tammande ñaane dija wo tammande ñaman kaati a ñanta burkala le doy ba burkala le wona mo systéme change hali ya lon ko korda naman da paso soto aka tayle sate ye vdc soto bare vdc ma aranke so soto abe nyaato ta sabatin da sate ko nyaadi abe kala talin talin kuci talin dima ko illa ning le be keri fo système o ye falin ntol ko ni marroɓe ntol bulule koku men jota pakali bajang atatala ere kansul kodege abe dunna pakali bala aran keso isaje jeko sango sang membo aran keso to VDC ani sate mullebe sila ka kacha mune nyanta dokula wo sango ko nyanta silol le katindila ko nyanta sohla kela e sate dimol la foyen ji selugol e ñanta soto la aye aye tariya pour aye soto aye sonoya fo karam mbugol le ñanta loola fo lopitan ndigol ñanta soto la mais ya lon ko mo sotitano je ni kolya soto ɗigoto ambulance ɗo jampana mais ya lon ko aɓe makoro dila ko kumen ya lon ko satete ñiñala koma bidisiba plan sake ye ñiiña wo ku min lanta lola dulato community centre toon ko beebe loola football fiilool ñampe talala daamen football ye sang dindiŋol la vessel ye sang ngol la papeli bala to to, yal isa isaa wo si kenno ŋaañaromo ti ko ila saate wala ñim bee sang an football timo be kala papeli bala football timo so isi contesté ani saate dool la woto yiŋ ko kuwo ti men woto woni mo faŋ sotote bu ko mo de ako mo jom yalla woto wole mo kuŋote alsa kalmuto ko sate naye projet projecto soto bari ala sembo ma tambandino bankola aran kes baatu ngamen fofulo anyanta ñanta alla sa sate to pourka bonndi koma taake woloya kandi ko dow men ɓe taara area council regional region bankola aran kes baato femɓe bola jee kaadi regional la pour mum kamma region yeddi bola ko ɓe kañande so isaje ko ni pakali mbaye project o soto abulo makoɓe asi tawo aran keso to ko makoɗo soto je ayke lankagooti ayala project to tamandi isaje ko sango kuya dada sango kuya dada sango kuya dada ni ni ko tamata wol ni silona sanji tan lulu adin wol ya mere ko be tikis pakel baba kele de woto ali ajele sa tesi bono komatato kordal si bo no haria ngamere wo koy tele bari wote ke lola alla karta keso kom alla karta keso wala ka tamande nya sabu bankoma tamaniya membe banko sambala nyato wala tamande nya memba adunde le yang ko ni ye wote wo ke dalilo kan mo lota jang ka yitendi bay faariya la nyame e sonto ko wona na tamata bolale yela berota ya jolong wandi keso ko bari niyen wote kuwoke niidiya kamma kaariye sukurboto dinna ɓe wotoyayo aye football o dinna beso dinna ɓe wotoyayo mm, mm, ngeta ɓaadimote ɓe wotoyayo aye nde dalasi tan lulu dinna ɓe wotaye woto woni dia woto bota se kelen yo tay bota kabila kelen yo tay dia woto aka dia marro le nat an ni dia marro wo ka bata doron le sabu banko sanje lulu kono e kumo doron ni kay fo yem bulale ni mun nafa wo dia musifa doron sanje lulu kono ye tole yalla ɓe moltole yanta mol yanta balan na sabi allah mo banko la sembote alla mo banko la kaŋote wo yanta yitalale tili naani disemba karo ñiŋ woto wo follow, folo folo nsaafono ka bo kaatoŋ ɓe koyna baara fo palote ntol ŋa meŋ je tooñaa tooñaa ah ngaamira gambiya denkutoɓe wulu kanne de gambiya denkutoɓe wulu kanne de gambiya denkuto men ye gambiya kanu mbela gambiya gambiya ya buuña men yela banko kanu yela banko ɗingol kanu woɓe wulu kanne nga men jeejang woye woye jikkindi baake ko dambe din kuto be wulu kan fo gambe din kuto ye wulu jannin gambe kuto be wulu gambia la samo abe tuntunden al bulu al kangole la al sembo na lota nyama yake kilinti ye tonya bamp ye londo nyini يلو تونيا كان ألبي بولي ألبي كلا كلنتي بكلا كلنتي مو كندول بي يكفاني بات كمو دي فلا جم من جويات كمو بي فلا من بحكلو يروان دي بي جي نفلو بي نفحابرو دون دي نمور طنع إلا isa jekko gambie din kuto aye wuro nga pare pour que gambie kuto dada ye pour besibal dahaba wosi keno inta fono ko abe kelele bawo atuka album tebe takanne bari nga men je hani ni faat bii inning tammo lebata ka lonko lum be lungol kono men ya lonko gambie din koto men ya lonko mota nene ɗo pet aɓe tarala a fabbulu a yala sengo sikka cant ka lonko ate kela mo kotan la jowoti ñim banko ga duniya ko wolungoɓe naala nde gambia anin afrique bari a la fa